bismillaahi rahmaani rahiim barke Sëriñ Tuubaa ñoo ngi ñaan mbokki taalibe yëpp ñu wax ne Cheikh Mamadou Kara Sylla la yàlla na fi yàgg te wér xanaa rek di soññ mbokki taalibe yi yaakaar Cheikh Mamadou Kara la te bëgg wéy ci ndigalam ñu leen soññ rek ndax taalibe ak moroom ji moom rek la ndax bi bu joxee ndigal ci ne ñëpp bokk ci fédération bi te fédération bi dafa mel ni doxin bi dafa xaw a yeex ndax nit ñi dañoo tënku ci ñàkk bokk ci fédération bi te xamuñu lu ko waral ndax taalibe damaa defe ne bu déggee ndigal sëriñam la mu war a jëfee rek mooy doxal kon ba léegi sëñ bëgg mu am ko ndax bu ñu sosee daayira fédération bi mel na at mi njëkk dox rek la sëñ bi wax noppal nañ ko noppal goo xamante ne gii ba mu dalee ba mu nekkee xalifa ba léegi mosu ko noppalu ñu dox tuuti ma ne ko tuuti daal noppal Cheikh Modou Kara Sylla la kon sëñ bi moom noppal nañ ko ci côté boobu waaye dafa des ay liggéey yu bëree bëree bëri yoo xam ne fédération bi ñoo ko war a liggéey waaye dañoo dox doxoon yoo xam ne mi war naa mën a liggéey loolu si bé jox fi benn daara joo xam ne dañ ko war a liggéey te daara ji ñu war a liggéey noonu bu ñu doxut rek liggéey ba du na war dem du demé te yaakaar na ne war ñu gën plan bi gën na te simi joxal ndigal nañ nañ nañ ko tabax kon daal bi nañ gor gorlu dogu ci fédération bi te la ci war ñu dox ko ndax itam bokk naa fédération bi yo xam ne yi doo dem réunion doo joxe addiya amul ñariñ kon dëkk yi nga xam am ay ay ay daaira te bu ñu soññee gan du ñëw nañu xolal seen bop te xam kat bu dé njir ya doxut nañ xol njir yi ñu changé yu yenen njiit ndax mbolo bo len yoré te doxu ñom seen bopp ñu wara xol xamna xam ne bëgg nañoo dox waaye seen njiit li moo doxut ñu changé ko ut koy dox yidal ko kon ñoo ngi leen soññ daal di leen wo ci fédération bi te xamna kër bo fa nekké ndigal la nga xam ne la suñu ma la soñ kër nga bëgg wé ji ndigal da ngay maas ji ndigal la wa bu kër ko ne jëmee côté dafa na ya man ci kër gi fekk mëno fa ndax newoo ci ndigal la am solo moy loy dëggee num baax baax rek daf ko ci ndigal ndigal mo am solo ndax dama gis ben talé bu fekkon sëñ Saliou Mbacke tek boobam bu bëree bëri ab ah, ab xanam bu bëri waaye ñëw xool ko rek daal am yéen da di da koy dégg rek mu sàkk lépp tek bu ñu ko defee Sëñ Saliou ñëw ne ku def lii mu ne ko man man ko ah jàmbaar nga lool rafet na lool de waaye ba jamono ndigal day lay gën kon nañ xam ne ndigal ab taalibe ndigal moo yor ñoo ngi sant itam suñu bokk taalibe yi nga xam ci liggéey bi suñu bas Anta nyang bi nga xam ne si mënu ko daal gi doogoon bakkanam taxaw gi rajo bi ne sama bakkan bi laa ngi tek moo tax ñun ba ñu jógee duñ dara ci aduna That's how it's. going. That's, uh,